dama leen ci jox ay njëriñ yu bëree bëri yoo xam ne weeru koor. Mhm. ku ko def da nga ko gis. macha allah yenn yi ay nawaafil lay doon. Mhm. yenn yi tamit looy jàng la. ngeen sëñ mhm. booy def weeru koor chaque guddi nga jàng suratul Fatiha. jaaro bi ñu ngi ko dippee rawxaaniya ndax xam ngeen rawan bu ñuy wax Shamsu Xoroshin wala rawaan bu ñuy wax yaa Seydi may dataron moom lañu ko liggéeyee ak leket bu bees xaru benn melo wala ganaar jaaro bi ñuy defar ba noppi ak sikar samo àndal su pare jàppal ni yow ak rawaan yi yéen a ànd mu lay dimbali ci lépp loo bëgg ubbi sa wërsëg jox la bayre di la aar boole ci jaaro bi nag li muy bañ takku ko ba pare ànd ak koo xamante ni takkuloo ko maanaam di njaalo o wa ilaa nga am wërsëg bi la yàlla jox doo ci sédd jam yàlla yi maanaam doo partagé jaaro bi nag kenn du ko defar di ko teg ci barab sur commande rek lañ koy defar maanaam da ngay jokkoo ak cabinet Sajaratu Touba moom Serigne maa liggéey mu baax mi ña nga ca Kër Massar terminus 53 bi numéro téléphone bi 77 539 19 04 77 539 19 04 xam naa bi may njëkkee ci waxtaan bi mooy nombre Zoumaline nga ñëw rek leeral ko mbokk yi ndaxte wax dëgg yàlla fan yi moom gars yi song nañ ko lool wax dëgg yàlla lan moo nekk ci nombre Zoumaline ba tax gars yi jublu ko. waaw sëñ Modou. nee nañ lu baax. Mhm. moom mooy wane boppam. dëgg la. Euh, dañuy def rappel rek rappel la def tout le temps di di fàttali nit ñi. Mhm. alxuraan moo ñu wax da leen fàttali ndax fàttali mhm. ko mooy. téere la boo xam ne muy ndomb boo xamante ni wax naa la dañ ko liggéey ci faatixtul kitaab ak wa in yakaadu allazina kafaru la yuzliquunaka bi absaarihim lamma sami'u zikra wa la majnun wa waaye liggéey ko ci suuratul waaqia ak ay njëriñam waaye liggéey ko ci musabbaxul xayraat mooy mm, musabbax boobu nga xam ne mooy wahaabu Mhm. karimu sultaani fattah razaq kaafi ganiyu nga xam mag ñi waxoon nañ ne moom jëmmi mu musabaa bi kese mhm. ku ko xam dëgg maanaam doo ko takk mukk di dellu ginnaaw est-ce que mhm. te Modou nag avancé dafa am solo. dafa solo wallaahi. naa benn waaye bu wéyee naan avancé. Ah? <laughs> avancé waaw. Ah? waa ñooy xamul li mu waaye de Modou. xamu ko wallaahi. Ah? <laughs> arrière moom yàlla na ci yàlla musal. allahumma amiin ku nekk avancé ngay ñaan. su ko defee sëñ Modou moo waral nit ñi ku ko ci am da nga koy tegtal sa moroom mhm. xam nga ñun nag tawféex bi ñu yàlla defal dañ koy sant yàlla. wa ma bi naamat ko fa xaddis. dëgg la. Mhm. yàlla bu la defalee ay xéewal da koy waxtaanee. Mhm. ñu bëri ñu foog da koy sant da koy waxtaanee yàlla bu la defalee xéewal. da ngay waxtaanee xéewal yi mu la defal. wallaahi bokkut ak wanewu. loolu la sëriñ bu tedd ba daan wax naan cant bu ñu rëwul ak wanewu rek des na. des na. da ngay jox nit gàllaak mu dem gis ci boppam woo moromam. ñun loolu la ñu am link boobu la yàlla defal. dëgg la waaw da ngay woo da ngay defal nit dara mu ne la sama benn sœur bu nekk France moo ma boole yow. Mhm. parce que defaloon nga ko nangam gis na ko. dëgg la alhamdulilah rabbil alamin mhm. téere bi gis nga noonu ko gis écran bi ñetti gaaw lay doon. Mhm. te doonu lu rëy man leen ma gis ndomba yoo xam ne ay xam xàpp kebe lay doon xam am na yenn xàpp yoo xam ne. mbaa <laughs> du moom ab sëriñ dong la arrangé. Mhm. xam nga sëriñ moom foo ko fekk mi ngi door ay daraam. dëgg la wallaahi <laughs> dara du feeñ. mais boo dee sol ay chemise ak ay pantalon ak yooyu moom. Mhm. am na yenn téere yoo bu yem la. te mhm. boo ko takkee du la dérangé. macha allah te nag moom dafa dox ci cat. boo ko takkee yàlla dina musal ci cat bu baax. macha allah te dina yokk sa wërsëg. moom kii mooy Zoumalin. moom yaakaar naa mu ci promotion bi. waaw promotion bi. ancien prix bi nga xam ne mooy soixante quinze mille bi. Uh-huh. ci promotion bi dañ ko def soixante mille. soixante mille waaw kon le vingt cinq mars. incha allahu uh-huh. taala dafay delluwaat fa mu nekkoon. macha allah kon gis nga. Uh-huh. bi ñuy natt promotion bi sëñ Modou. nekkate ñun promotion bi muy jeexee mooy bu ñu defee élection ba ci suba ga. <laughs> est-ce que. <laughs> xoolal loolu. ah mm. mm-hmm. te boo xamuñu woon kat na le 24 mars bi mooy élection yi. wallaay ndeysaan ba. Mm-hmm. Ah, day fekk nag Sénégal am beneen xar kanam bu bees. Sénégal daal di commencé neex. incha allah mu ngi noonu mu doon lu am solo waaye li eh, may faral di wax rek xam nga wax dëgg yàlla. <coughs> jeunesse bi su ma nee jeunesse mën naa ne mooy avenir u réew <coughs> te mën naa ne dañoo toll ci change président mm. te ci jamonoy campagne la nekk mm. maanaam sacrifice yi dana bari mm-hmm. loraange yi dana bari a yaakaar naa kaaraange ci la bokk. te su ma nee kaaraange wax Senghor gi. Mhm. lan nga ñu ciy wax tey ci loolu noonu. waaw Senghor gi. Mhm. am na solo loolu ndax euh, boo xoolee sëñ Modou. Mhm. jamonoy campagne dëkk bi day rëpp. dëgg la. ndax mbooloo moom sama génn góor daan na wax naan mbooloo lu ne lu ne cee booloo. wallaahi lépp <laughs> wallaahi lu ne cee booloo moom. waaw maanaam fu ay ñaar nit ñett daje rek jikko yu wuute. Mhm. ak ay humeur yu wuute dañ fay daje. dañ fay daje loolu moo waral lu ñu bëgg-bëgg jàmm da gis léeg-léeg. Mhm. ay accident yi mënut a ñàkk. dëgg la yàlla nañu ci yàlla musal. Mhm. moo tax seen war baax na loolu ci jamono gi ndax loo xam ne dina la muccal ci accident oto. accident gaal ndox lakk-lakk. yàlla musal la ci loo xamante ni. maanaam jaan la wala jiit buy fette mm-hmm. wala yàlla musal la ci ay tooke yu ñu la jox wala poison yëpp yàlla musal la ci macha allah mm-hmm. ah, loolu fa tabarakallah sëñ Modou mm-hmm. jar na lu ne waaye non seulement nag dafay yokk sa wërsëg moom Senghor bi waaw ñi ngi ko fi joxoon de ba léegi am na ci ñoo xamante ni ñu ngi sant bu baax macha allah baax a baax a baax dëgg la ndax dañ lay nettal yu bëri yoo xam ne des fois mënoo foo toll di dugal ay témoignage dëgg la sëñ Modou mooy pàgg yeeslu bi. Mhm. yaakaar naa li ma la ciy jox ci ay témoignages mënoo ko wax. wallaahi am na si dama koy fàtte ba du ko dugal. am na si yoo xam ne sax man tam maa du préféré dugal ko ndax dangay man tamit. Mhm. damay laaj ndigal li jëpp. dëgg la ndax mën naa ko dugal nga ne waa parce que man bëgguma ku nekk di jël sa. say say audio di ko tas ci internet bi. mais am na ci ñoo xam ne seen i audio su ma ko tegoon dangay foog ne sax ñii dama leen moom mm-hmm. 45000 la ba tey toujours prix bi 45 mais li ci neex mooy dañ la ci may sangaay ubbeeku. cangatu ubbeeku waaw boo xam ne mm-hmm. mu ngi noonu mu nekk lu am solo kaaraange moom yaakaar naa ni jamono ji lu am solo la. Mm-hmm. waaye xam naa ni euh, balaa maa ñëw ci li ñu war a waxtaanee dëgg rek. damay ci ñambaas ñaar nga xam ni euh, nit ñi bëgg nañ ko trop. muy cangat bi nga xam ne mooy tobbu neew bi. waaw tobbu neew gi sëñ Modou. waxoon naa la moom mooy 41 tobbu neew bi moom dafa jege sax mu ngi nii. mu ngi ko liggéey pare mais dafa ànd ak maanaam rey doon lu new encore. rey doon lu new ñaar lañ boole. ñaari mbuus lay doon. macha allah kii kenn mënu koo sangoo te sëqoo ci wërsëg. Mhm. garabu new garab doo ko xam ne nii foo ko fekk mi ngi tóor tóor mbaa mu ami doom. Mhm. macha allah mbaa mu ami xob. Mhm. moo tax garab la goo xam ne ni ku koy sangoo doo ñàkk. waaye garab la goo xam noonu la baaxee ci ay rab tamit même ay rab nii rab mhm. waaw garabu neew la ci baax la macha allah léegi nag dafa ànd ak rey doon gi nga xam ne mooy neew gi bi boobu tamit waaw cangatu dugóor gi moom mhm. moom ci wàllu xaalis lay dox ak saxal nit ci barab Mhm. waaw yaakaar naa loolu moom gis nga bi ñu koy uti ci àll ndoomor ba. macha allah uh-huh. ak lañ ca daj yëpp. ak nañ ko jëndee lépp ba indi ko. Mhm. sooy moom ki koy sangoo doo manqué xaalis. Mhm. incha allahu taala. macha allah moom moo doon jar 69000 léegi mu ngi ci 59000. am na sangat boo xam ne ñu bëri dañ koy laaj na ma ñu luy ay xasun ay xasun. ay xasun ay xasun. <laughs> chaque jour ma wane ko. ma nga ne la ngay séen mbind mu bëri la. mooy kayit yu bëri yi mbuus gi nii moo la. macha allah indee mbuus bu verte boobu. lii ay commandes yu war a dem la. mooy ay xasun. ay xasun. lii mooy ay xasun. Mhm. xam nga lii du mbind mu ndaw. macha allah kii mooy ay xasun. Mhm. moo jar deux cent vingt cinq mille. moom càngaay boo xam ne sëñ Modou damaa ne ko sangoo. Mhm. te sëñ Modou ubbeekoo. sa sa sigaada ca ca dëkk yu tedd ya rek. te xam ni bokkoo ci ñëw rek yi. parce que la sama góor waxoon ne am na suñu yenn càngaay yoo xam kuñ ko tegtal. nga jëfandikoo ko te gusoo ci dara. bu lu xoolee ci benn sëriñ xamal na ci yow la. wallaahi waaw xamal na yow moom yaa am problème. dëgg la mhm. mais cangaay boo xam wax dëgg yàlla ku ko mos di nga xam ne ni laal nga cangaay. macha allah asun mhm. bu ma jar deux cent vingt cinq mille. ñu ko liggéey pare am la ko. Mhm. incha allah mu ngi noonu mu nekk lu am solo waaye sëriñ bi xam naa amoo amoo jot wax dëgg yàlla ndaxte gis nañ liggéey bi saturé na macha allah. Euh, dañuy ñëw ci li nga xam ni muy seet. am na su ñoo xam ne dañuy laajte naan ndax seet ci weeru koor dana mën a nekkam déet nga ñëw rek leeral ñu tuuti ci wàllum seet. Hmm. ak tamit question boobu nga xam ne dugal naa ko ndax seet ci weeru koor gi. Hmm. naka lay mën a demee. waaw sëñ Modou seet ci ndax dagan na ak daganul. Hmm. wala dana mën a nekk du mën a nekk. loolu moom daanaka dama ciy tontu lu gàtt. sagam hôpital yaa ngi ibbi ba léegi di consulter les malades. ci weeru koor gi. cabinet yi tamit danañ tijji di consulter. macha allah parce que nit ñi seen i problème duñ jeex. bu fekkoon dañ naan problème yi bu ñu eggee ci weeru koor problème yi du jeex feebar yaa ngi fi. wallaahi tawat yi ñàkk wërsëg bi kumute lépp a ngi fi. Mhm. te seet bi pour xam li la daal rek la. dëgg la nga mun koo faj. xam ne ne mhm. ma jàngale ci na moo tax ma nit mhm. ku ne xam na ne. nit ku nekk war ngaa mën a def ñaari ñetti weer yoo toll. nga seet lu xool say say xool fu mu toll. ndax gis nga seet sëñ Modou am na si ñoo xam ne yàlla moo leen ko jagleel xam nu mu leen ko jagleele. da may gént. dëgg la am na ñoo xam ñooy seetal seen bopp. Mhm. lépp lu ñu arrivé ci seen dund dañ koy gis. dëgg la ñu jug daw teel a préparé wu loolu moo dal seen kaw. Mhm. ñu sàkk sarax def ay ñaan. bu xam ne nag laa woon ba pare nga ne xaaj di xool da ngay jékki-jékki mbir ma dal sa kaw mhm. na ñoo xam yàlla mayu leen loolu moo tax fu ñu toll war nañu xool seen bopp comme ni ngay demee ci médecin bi de temps en temps nga def bilan xool sa bopp macha allah kon loolu la léegi nag loolu ci weeru koor ak bul weeru koor yëpp dañ koy def. dañ koy def macha allah kon toujours li may fàttali nit ñi rek mooy cabinet Chagarou Touba dafa dox ci organisation. ñun mardi ba mardi léegi lañuy seet ci téléphone. Mhm. soo ñuy wax Moodu day leer. xam nga man bëgguma yor di koy tóob xam nga tóob Moodu. tóob mooy. tóob mooy genn rab la boo xamante ni ñuulut gëriwut kenn xamul. kenn xamul nu mel. <laughs> Mhm. xam nga. boo xoolee doomu aadama yi mhm. dafay am muzabzibiina bayna zaalika laa ilaaha ulaay wala ilaaha ulaay dafa am daa am ñoo xamante ne dañuy fekkee benn tànk xaw ma cëpp fee mhm. doo xam fi lañ bokk doo xam fi lañ bokk wala bu ñu waxee ci kaw micro bi ak caméra yi wax la loo xam ne da ngay dal sa xel mhm. ci suuf ñu wax la leneen loo xam ne dalay découragé leneen la man nag loolu laay bañ ma dal ma moo tax seet gi man samay prix dafa leer leer na macha allah sëñ Modou bu njëkkoon seetu téléphone gi dañ koy yemele woon ak seetu ki ñëw ci cabine ki ñëw toog te loolu mënut a nekk. dëgg la parce que nit mënut a toog déplacé wu fay transport am ñëw toog. Mhm. nga seetal ko mu fay même prix que ki tëdd ci lalam. Mhm. loolu moo waroon différence Europe ak Sénégal léegi nag depuis un certain temps man dama ne léegi man sëñ Modou xàmmeetu ko nekk Sénégal ak ka nekk Europe. Mhm. lu baax moom pour ñëpp la. dëgg la te ka nekk Europe la muy daj pour am xaalisam. loolu la ki nekk Sénégal di daj. léegi moo ku tëdd fi nga tëdd moo xam da ngaa nekk Europe moo xam da ngaa nekk Sénégal tëdd sa te bëgguñu seetal la vingt mille francs ngay fay. loolu dafa leer suñu wóor. Mhm, leer na koo xam ne nag moom da nekk fii biir réew mi te mën a déplacé wu ñëw. Mhm. wala nga jóge bitim réew ñëw boo ñëwee fay dix mille. Mhm. dagg ticket bu dix ñu seetal la. macha allah seet bi ñuy def ramli la. ramli dafay dafay gis problème indi solution. moo tax bokkul ak seet yi nga xam ne ah. da yokk ay problème de wallaahi <laughs> am na seet yoo xam ne sëñ Modou da lay yokki problème da ngay dem ñu sàn sànni tane ji mu wasaana ah. nga jug demaat jeneen tane wasaa wasaa maanaam dañ lay wax ay problème yoo xam amuñu solution amuñu solution bi su ko defee solution yooyu nag nekk sa problème ngi noo <laughs> ah, yow Modou xam nga nag ne solution yi ñoo mujjee doon sa problème wallaahi léegi nag mhm. fii nag moom dañoo bëgg problème bu nekk solution mhm. am dëgg la seetalee wax la problème solution bi lii mooy solution bi mhm. wala ñaan gi moo koy dindi wala nangam ak nangam macha allah mais di seetlu wër di seetlu dagal ay sarax am ñoo xam ne ay carnet sarax la ñor wallaahi mënuñ cee génne benn génnewuñ ci benn <laughs> <laughs> ñi tamit li may faral wax rek da ngay dem ci sëriñ sëñ mhm. Modou seet mu seetal la ba pare ne la sarax yi indil ma génneel la ko di la forcé génne sarax yi boo ko joxee da koy lekk waaw sekkeen yi ak ak jaween yi boo leen joxee sa xaalis dañ sëñ Modou seet ay tappale amu ci boo seetalee nit ki boo ko problème am solution bi mi ngi mel nga ñëw ci docteur. Mhm. léegi docteur bu la defalee consultation pare bu la bindalee médicament daan la indi ma dem jënd ko naan. même jëndal la <laughs> kéemaan la nga ko nii nga koy defee mhm. bu fekkee ne la man kat damaa ñàkk jot dafa may dal man chaque jour. waaw damaa jot ba mënumaa génne samay sarax. Mhm. wala kat bëgguma ko ma xamal. damaa bëgg ma ko dama naan la Modou kii. soxna si wala sëriñ bi. Mhm. loolu de mën naa nekk. Mhm. mais à condition mooy ma defal la ko pare filmeel la ko envoyé la ko. envoyé la ko. Mhm. nga ne ma jaru ko ma ne la jar na ko parce que man noonu laay liggéey. macha allah man maa bëgg lépp lu may def moom ay preuve. kon sëñ Modou ñu bëri dañ ñu ngi seetlu te mënuñu am résultat ñi ngi seet naam ki leen di seetal mën naa seet. mi ngi gis mais sarax yi ñu war a def pour génne ko. lañ deful. xam nga dafa am ñoo xam ni ndeysaan ñoom mën nañ seet mais xamuñu la mooy résoudre maanaam problème. loolu tamit day indi day causer problème ci des fois ki nga xam ne day seetlu si. sarax mooy mooy mooy mbir mi. Mhm. mën nga war a seet. yow mhm. di wax luy luy am. mais mhm. mënoo xam sarax. mënoo xam sarax. ramli nag foofu boo ko mënee dëgg-dëgg da lay jàngal sarax benn doom bu nekk am na saraxam. te saraxu li man ñi ma koy digal fii ba du bëri li ci ëpp. wallaahi. waaw bokkul ak ñi lay saraxeloo am na benn euh, soxna bu ma keroog benn waaye bu ko saraxloo ay gileem ak ay. <laughs> kooku damaa yaakaar ni bergerie la bëgg mu jaaree fa na gën ne kap mbiram na gën ne kap tëju est waaw mm. mu leer ma ne waa moom maanaam mm. waxuma la nag waaye yàpp nag doo jënd ko wallaahi mu loolu caaxaan la mm-hmm. am na sarax yoo xam ne bu génnee yàlla day accordé direct dëgg la nag dafa bokk ci saraxu kilifa mm-hmm. nag ci saraxu kilifa yi la bokk mm-hmm. moo tax na ci yoo xam ne ni bu la ko nit waxee da nga xam ne defu ko macha allah am seer rek ndaxte damaa bëgg mu mu xaw leer ci bopp nit ñi am na si ñoo xam ne dañ naan damaa génnee sarax boo xam ne daf maa tëj sarax mën na tëj nit waa sarax mën na tëj nit mhm. waaye ci kaw ñaari mbir mhm. bu njëkk bi mooy ramli ramli mhm. boo dóoree tem bi ba tem bi taxaw te xamoo nooy saraxee tem bi mën naa neex nga xool tem bi nii tem ramli bi xam ne kii moom ku ko laal sax ku ko laal mu dem li naan bërigo ci mbartal bërigo ci mbartal la waaye nga créé sarax boo xam ne du saraxam mu saraxe ko rek nag kàpp tëju est-ce que maam da ngaa tudd ramli bi comprendre fi ma waxee est-ce inversé da nga inversé. waaye léeg nga xool benn thème boo xam ne dafa dangereux nga xool thème ram xam ne kii moom pour mu génn ci situation dina jafe. du yomb. Mhm. mais nga gis benn sarax boo xam ne da koo laal rek sarax bi réparé lépp. Mhm. est-ce que. comprendre nga est-ce que. mi ngi mel ni tey nga créé benn système. Mhm. exemple mu a jox mooy léeg-léeg nga bind sa benn bataaxal nii ci téléphone. wala nga def audio bu neex préparé ko wax li nga war a wax lépp. ba mu des bu doon pour mu dem. nga bës bouton bi te demul. te demul <laughs> loolu day faral di am. sëñ Modou li may dal nga a bëri. wallaahi léeg-léeg ma wax sa waay xam nga. def discours bu jaar yoon bu jaar yoon waxtaan ak nit ki ba war ko ko lancé. Uh, audio ba mu tëb audio ba tëb. Mhm. <laughs> nga war a commencé waat <laughs> te la nga waxoon doo ko mën a wax waaye léeg tamit nga bëgga a wax tooxi doona ci vocal wala ci ci écrit. Mhm. bind li nga bind fekk da ngaa mer. Mhm. da ngaa nekk état de chagrin xool wax li nga wax yëpp ba bés bu doon bu doon bañ demul. santal yàlla xam ne yàlla bëgg na la mhm. yàlla daraam du hasard. dëgg la léegi noonu la demee tam léeg-léeg nga defar benn thème bu baax yàq ko ci lu ndaw ci sarax. léeg-léeg itam kazaale gën am na ci ñoo xam ne aussi nag des fois ci seen nature yi. xam nga tabian am na solo. tabian waaw wàllu tabian baax na. mooy nit ki nature am. ndax ndox la ndax suuf la ndax ngelaw ndax safara la léeg foofu tamit nit ki dafa basé wu pour génne sarax gis nga foofu tamit. Mhm. am na ñu ba dañu foog ne tabian ah moom couleur. déedéet gis nga am na ñetti couleur. ñetti couleur ñetti couleur. Mhm. nit ki am na couleur biddiw biddiw bu nekk am na couleur boppam maanaam biddiw bi mu aju moom. Mhm. mooy planète bi. kawkab bi am na biddiw boo xam ne couleur sàngam lay lay lay émettre. bi. burju mmh. bi moom la mooy li ñuy wax la constellation mmh. constellation bi mooy signe horoscope yooyu nga gis am nañ seen couleur mmh. tabia bi am na couleur boppam est-ce léegi nag am na koo xam ne couleur tabia rek lay topp am na ko couleur biddiw am na koo xam ne couleur burju lay nag mais boo xoolee tamit am na ñu mën def maanaam mélange de couleur jaxase ko lan mooy waral tey nga gis peinture kat ñëw soxla couleur bu gris sëñ Modou est-ce que xam gris lan moo koy composé gris waaw déedéet. <laughs> tey moom tey tey mendi ma mën de. <laughs> gars yi moom dañ koy créé moom. dañ koy créé. Mhm. da ngay jël noir ak blanc. noir ak blanc mooy génnee gris. <laughs> Mhm. léegi gis nga boo soxlaa yenn couleur yi. Mhm. tey am na nooy jël jaune ak vert nga mélangé ko mu jox la mauve. léegi nag yow boo xamee ni ñuy mélangé couleur des fois. mën nga jël benn couleur jox ko nit ki fekk moom mooy ñetti couleur am yëpp. mooy ñetti couleur nga jaxase ko <laughs> def ko benn. <laughs> moo tax sëñ yëpp nag ci xam-xam bi diw la aju. Mhm. allah yooyu itam boo ko xamee léeg-léeg nga résoudre jaxase aussi. la demee. Mhm. mu ngi noonu mu nekk lu am solo doon ay leeral yoo xamante lépp ci wàllum seet la. Mhm. sëriñ bi dañuy ñëw tey ci li nga xam ne moom ngeen may mbokk yi su ko defee ñu mën a yëkkati jotaay bi ba suba incha allah. waaw sëñ Maodo. comme ñi ngi jug jub koor weeru koor. shahru ramadan al mubarak ko fekkati tal ko te weer bi yëpp ñu jaamu ci yàlla te lu ñu ci jaamu yàlla yàlla nangul ñu ko mm-hmm. defal ñu ko ci suñu misaanul xasanaat balaa loolu nag sëñ Modou tamit ñuy profité mm-hmm. di baalu ñëpp àq mm-hmm. ndax àq dafa sew moo xam ci ñi liggéeyal ci barab bi tàmbalee ci yéen moo xam ci clients yi ñuy jëflanteel moo xam ñi waxal ci internet bi léeg-léeg nga wax loo xam ne day metti xol nit doo ko yëg de uh-huh. léeg nga tontu nit ci commentaire loo xam ne da koy metti doo ko yëg ñooñu ñëpp nag maa ngi leen di baalu nag ba mu des saa saagakat yi. <laughs> wallaay ndeysaan. léegi Modou. <laughs> Uh-huh. man ñii saaga moom du ma leen baal moom. baadu <laughs> saaga baaxul. Uh-huh. di di nekkul yëfi nit ku yiw. dëgg la nit ku mm. yiw du saaga. wallaahi baal naa ñëpp àq nag. Mm-hmm. yàlla na suñu borom nag boole yu jégal ñun ñëpp. Mm-hmm. te ñu def koor gu nangu waaye koor gu ànd ak xéwal. Mhm. waaw nga xamante ne nag eh, da nga mën a defar ay ay ndog yu baax sañ Modou. macha allah ah? xam naa ren kóor ren gi mu dina wuteeg kóor daaw. wallaay ah? <laughs> sëñ Modou daaw. nga daan ci meer bi jaay ndam ak doom rek mu la xasal la këyit. daaw moom wax dëgg yàlla gas kafe fu ma ndogu fekk ma ndogu. nga ndogu mais ren moom doo sañ moom. <laughs> wallaay macha allah yàlla na yàlla barkeel. Mhm. kon su ko defee sëñ Modou. Mhm. comme ñu ngi ci weer wu neex neex a jaamu yàlla. dama leen ci jox ay njëriñ yu bëree bëri yoo xam ne weeru koor. ku ko def dañ ko gis. macha allah yenn yi ay nawaafil lay doon Mhm. waaye yenn yi tamit looy jàng la ngeen sëñ Modou mhm. booy def weeru koor chaque guddi nga jàng suratul fataxi mhm. sëñ Modou déglu baax la su innaa fatax naa laka fataxan mubinan mooy saaroo di suratul fataxi nga tàmbale ci benn fanu koor bi guddi gu jot nga jàng ko ba korite jët sëñ Modou at boo ci ubbeeku lu tax ubbeeku allah akbar. Mhm. loolu maa la ko wax moom. Mhm. macha allah da ngay ubbeeku bu baax incha allahu taala suratul fatxi. tubarkalla. ba tey képp koo xamante ne ci biir weeru koor bi saxal nga di naafila nii may bëgg a wax. Mhm. maanaam sa guddi yaa xam bépp naafila booy def nag. mais na ko tëjee ñaari rakk yoo xam ne rakk bu nekk ñetti ixlaas nga ciy def. macha allah. nga ñam ko ci weeru koor bi nga xool léeg nit nit dana def téeméeri rakka. sëñ Modou. nga def ñaari rakka yoo xam ne rakk bu nekk ñetti lixlaas ñetti def yaa koy mën ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na Seydina Ali bokk ci digal mu ko digaloon fukki digle ya mhm. mujj ba ndax di guddi gi jot balaa ngaa tëdd na nga jàng kaamil mu ne nu ma koy defee mu ne ko ñetti lixlaas wecc na kaamil alquran <laughs> moo tax boo jàngee ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari lixlaas ñetti lixlaas ci ñaari rakka yi day mel ne mhm. ku naafilaa ñaari kaamil mhm. moo tax ku koy def ci weeru koor su su guddi weeru koor yi da nga gis njëriñam macha allah macha allah ba tey sëñ Modou weeru koor weeru yàlla di nangoo ay ñaan la mhm. raw weer yëpp lay ñaan ak lay nangoo ñaan ak ak waxtu yëpp mhm. waaye rawatina weeru koor moom weeru promotion la weeru promotion la mhm. moo tax dañuy ñaan ci guddi ak bëccëg yi waxtu yëpp la ñuy nangu leneen weer bi yëpp weeru lëmb maanaam amul benn heure boo naan dem heure bi yàlla du nangu yëpp lay nangu wallaahi moo tax nañuy nañuy jaamu yàlla bu baax baax su ko defee tamit astaghfirullah astaghfirullah joxe woon naa ko keroog ci doggu 3146 Mhm. sëñ Modou nañ ko ñam. ñi nekk ci ay gàllankoor ñi tëju ñi umu. ñi bëgg a mhm. liggéey mënuñoo liggéey nañu toog def astaghfirullah ci weeru koor bi 3146 chaque jour nga def ko. Mhm. durant weeru koor bi yëpp nga xool. dëgg tijjeeku incha allah yàlla buntam yi tëju. dëgg la. gaa yi ñoo fëggul rek. wallaahi <laughs> waaw bunt yi. Ah, yi ibbeeku na. macha allah voilà. Uh-huh. su ko defee beneen bi nga xam ne moom laay terminer aussi. mooy suuratu rahmaan baax na li sangoo ci weeru koor. suuratu rahmaan rahmaan mhm. sëñ Modou boo bindee suuratu rahmaan ba mu egg hmm? mhm. nga dem jënd sa juróom-ñaari doomi banaana mhm. banaana yi nga wut si set defar saafara si xooj ko daal di xëppoo benn xëppoo jël banaana yi dem saraxe ko continuer nag fexeel weer bi yëpp rek chaque jour nga laal saafara si rek nga xool macha allah gàllankoor bu mu fekk sa yaram yi gis noonu ñuy xollee banana yi di ko lekk. noonu lay xollee ko ba set. allah akbar incha mhm. allah mu ngi noonu mu doon lu am solo am na ci loo xam ne dama koy fàttali mbokk yi nga xam ne ñoo mhm. a doon mhm. a demee incha allah. waaw sëñ Modou macha allah. journée boobu journée bi incha allah. xam nga damaa yor ay groupe WhatsApp. di leen jàngal xam-xam. Mm-hmm. xam-xamu ramli xam-xamu asrar ak yu bëree bëri ak groupe yoo xam ne latif la. Uh-huh. ak groupe am salaatu ala nabi mooy yaa rabbi salli ala Mustafa. Mm-hmm. di sama salaatu bopp. macha allah yooyu yëpp nag at mi jot. Mm-hmm. dañuy mu nekk bis boo xamante ne bisu jaamu yàlla la ak bernde. est-ce que bu ñu xëyee dañuy jàng alquran. def ay dopp zikar partagé ko. waaye ca ngoon ga bu ñu defee yëfi sekkee ni ba noppi. Ah, ñu dagale borom xam-xam yëpp ñu dem ci tableau bi nag. ku mhm. nekk li nga xam nga génne ko. baaxe ko baaxe ko gars yi. Mhm. sëñ Modou muy journée bu am solo. macha ne ku fa ñëw di nga fa jëlee xam-xam. Mhm. moo tax nag ren ñu jàpp ko le 28 avril incha allah. macha allah mu yem ak dimanche. ñu ci woo ñëpp nag. soppe yi am di jàmm yi abonné yi ñëpp. Uh-huh. bëgg nañ daal ñëpp teel a ñëw incha allah. Mm-hmm. yaa ngi dégg dana am ndékki sëñ Modou Sekkeen ak Jawe ni dañuy uh-huh. laajte ndax ma fa teelee dem xam naa ñuy njëkk a ñëw ñoom danañ ndékki <laughs> uh-huh. ay ay yu baax la ñuy ndékkee nag. macha allah danañ añ. Mm-hmm. incha allah daala te dem njogonal dana am reer dana am. tubarkalla kon ñu ngi woo ñëpp. Mm-hmm. bis boo xam ne sant yàlla la ak jaamu yàlla ak. dajawaat mbooloo mi ñu waxtaan sunu biir macha allah kon loolu ak joxante xam-xam kon nañ ko bàyyi xel le 28 avril incha allah ca kër Mbay Fall ca ca Rudis muy sama kër. Mhm. quartier Kawsara. macha nga xamante ni sama kër fa la nekk. Mhm. foofu lañ koy defee incha allah taala. Mhm. xam naa danañ ci gën a def waxtaan bu gën a yaatu. incha allah ci beneen jamono. macha allah mu ngi noonu sëriñ bi dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokk yi. sëñ Modou li ñuy wax ne mooy in uridu ila al islah ma stata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa wa barakatuh mbokk yi ndax xam ngeen ni ki ko mën ak ki koy jéem duñu benn sajaratu Touba di kabine boo xamante ni day yëngu ci wàllu médecine traditionnelle adresse bi benn la ña nga ca Kër Massar ca terminus 53 bi numéro téléphone ba di 77 539 19 04 77 539 19 04 da ngeen fa fekk Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal laa biir lool ci doomu aadama yi mbokk yi ndomba xalaas ngir yëkkati la doo dellu ginnaaw ndomba xalaas mi xëccoo boo dem ca kanam rek nga jëm dina dina raxas sa yaram ndax sangat ya muy àndal aar la boole ci ndomba sengoor bi doo accidenté doo lab si géej bâtiment du daanu sa kaw jaan du la mat jiit du la mat fital du la rey noot bi jigéen di jox góor du la rey yokku ci di nga am kaaraange yokku lool si sa wàllu wërsëg ndax xam ngeen kiis mi nga xamante ni mooy neexal xel rawatina xale bi nga xamante ni day jàng doo gaaw fàtte dama ni ñaari junni ak ñaari téeméer dongo nga am kiis bu ni men Bayra Njaay yéen commerçant yi laay waxal ñaari téere la benn bi ci njaay mi benn bi nga takk ko sa buntu place yéen commerçant en ligne benn bi nga def ko sa biir pochette ak benn saafara bi ngay diwoo bés bu nekk pommade bi nag pour tooke oreillon la wolof di ko wax seekeek wala newi newi loxo wala béy ku sa doom géex si sa ween ba mu def ay donju boo moytuwul mu indi la ay xeetu cancer diw ko ci incha allah dina deñ bayre tubaab waaw bayre tubaab laa wax de ci wàllum arxuraanul karim lañ ko liggéeyee nga nekk mbitim di jëflante ak tubaab yi ngeen juboo lool tubaab yi jublu ci yow wala ñu lay liggéeyloo loo wax ñu ne waaw juróom-ñaari bul la juróom-ñaari fan nga koy sangoo saabu bii dina raxas sa yaram teggil la bépp jafe-jafe waaye tamit bayra moom di nga ko am lool rax si dolli te ba ngay am kon mbokk yi cabinet Sadiaratou Touba ña nga ca Kër Massar ci terminus 53 bi numéro téléphone bi di 77 539 19 04 77 539 19 04 Serigne Malick Gueye mi yàlla baaxal laabir lool ci jaamu yàlla yi di leen faxaar yokk am ndam xéewale lool kon mbok mbokk yi cabinet sajaratu tuuba daw leen gaaw waaye yéexati ñàkk la daal ngir sa aaja faju